来来。

Jamaica. Yeah. Oh, my God.

Serigne Saliou bu ko def yàlla moo paralysé ci barke Cheikh Ibrahima Fall alhamdulillah ni sant yàlla

Alhamdulillah وتدعو مبدع الحمد لله الحمد لله يا صبي سيدي مهتار وربي منك الحمد لله الحمد لله Cheikh Sidi Muxtaar borom bi bind ka ba xam nga illa alhamdulillah nu doon de yàlla yàlla ram bu ba illa alhamdulillah dama soppay Cheikh Sidi Muxtaar soxna may Mbakke alhamdulilah alhamdulilah yaa di sant yàlla nee naa soppi Seex Sidi Moxtaar jógal taxaw màggal pour ngir dund alhamdulilah

soppe yi sëñ baara loxo ca kaw mu mag ba moom mbàkke allah la ilaha ci di waran da leen di dum di maa ngi sant ala Thank you. leneen lu dul édéla maa ngi sant moom lañ édéla daal lu ñu di élél lu ñu jëm si ci doom yi maa ngi sant man man suñ saa yi yaa ne xam yaa ne xam de ànd maa ngi na ànd la min defal nii sa la Babacar ak sama sama Babacar waa sokone waa sokone Bilal Allah sụp sinh băm bạc nó cha cấu lòng nhân hoàng kinh để đừng đợi ra đi ôn đợi đừng đợi Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. annabi fallo ma kuma sarki din fallo ma kuma sarki din fallo ma kuma sarki din fallo ma kuma sarki din fallo ma kuma sarki din fallo sai tabu da dafdi din fallo ma kula mirina amal la ilaha illa allah wala bi allah ni fallo ak jago jóg leen taxaw ca kaw màggal sëriñ Fallu ku ko def yàlla boo borom si ci barke Sëriñ Fallu Fallu ba ko xam sa ci ci Fallu ba ati def ci ci Fallu ba ku ne mu gindi xamal وسجد العين جبنا اسمعين بك سري طلو درجة وجمع جمعنا سبت ربي يوم سبت الله نعمي والعاقبة

Everybody in the kingdom, everybody in the أنا صبي زين راجع قوم من دوبي زكي أنا بالدوار كيوم جارا يبون جيل نوبا كل زين فلو راجع قوم من دوبي زكي أنا بالدوار

Bagi lambu Bagi ngadege Sik sayu nama Ibungi Ibungi Tetakula behu mamdu Bakulani Barang jamu Barang jamu Barang jamu Mayanu Tetakula Barang jamu Amalan Tetakula

siamudu bentara mana mana mungge mana mana Dula silakan Dunia ada yang nolah nan ko màggal Sëriñ Fall Njarna Lo dalal nan ko màggal Sëriñ Fall Njarna Lo may sa kii kumba Fall jaaraama maam Sëriñ Fall may sa kii kumba Fall jaaraama maam Sëriñ Fall may sa kii kumba Fall jaaraama maam Sëriñ Fall may sa kii kumba Fall jaaraama maam Sëriñ Fall sopp seen si bi mu ko taal dama ñëwaat ci naa sëriñ si ni Mokhtar Bamba ja wàcc naa. sëriñ si ni Mokhtar Bamba ja wàcc naa. mbokk sëriñ si ni Mokhtar Bamba ja wàcc naa. sëriñ si ni Mokhtar Bamba ja wàcc naa. yaa doon sëriñ Bara Bamba ja wàcc naa. yaa doon sëriñ Bara Bamba ja wàcc naa. sopp sëriñ si ni Mokhtar Bamba ja wàcc naa.

عزيز مقدار وما مصطفى والبعيد مصطفى تنزيل مقدار يا مصطفى تنزيل مقدار كما كنزان نعم قرن لقد هادر يا مقدار يا عدار Allah Hallelujah.

Because it is. استوى وجال الأعمى رب الآسيا مبين صلاة بكازلين المجتمع استوى وجال الأعمى عمنا باينا بدار من استوى الخجل يا الله يا مستوى الموجود لا لا لا لا الإمام سعود ضمنا بتسليمه إلى المنعم بتسليم الإمام مسلم بعد فنيك بتسليمه إلى المنعم بتسليم الإمام nga ñu màggal seen Bara Mbàkke nga noonu bi taslimi ilal mulk muhmid bi taslimi anna tawar jàkku kan ku màggal seen Bara Mbàkke nga noonu bi taslimi ilal mulk muhmid bi taslimi يعود بمنا كما زغبت قدر سعيد لا اله الا الله كما زغبت بدر سعيد سما من فضل كما زغبت قدر سعيد لا اله الا الله سما بالمقل كمن زغبت بدر سعيد لا

sak nan ba đường ra đường dập múc xin ba đưa phân ngày ta mang ra ba ô dần Quý bay phân để phân nghề chỉ ta mang ra có bằng ngày lỡ Bất đường trái đường dòng أعمد يا أمد زائد سمى بالفتن كان زاهرا بدر زائد زاهرا يا أمد سمى بالفتن كان زاهرا بدر زائد زاهرا بالفاتن يا أمد زائد زاهرا بالفاتن فقد ويا إله ونف يا إله لا إله إلا الله يا إله يوم غنم زير بارا فقد ويا إله شيخ مدن ونف يا إله Serin, serin barang, panas raya, panas raya. لا إله إلا الله يا محمد سيرنا ay waay mbooloo mi Serigne Bara Ngom képp koo xam ne jub nga taxaw jëkkal ñu màggal Serigne Bara yàlla boo paralysé ñu la taxaw jëkkal ñu màggal Serigne Bara Mbacke yàlla ko ay jël. alhamdulilah. vraiment yaa ilay lala. wa def fa yaa ilay lala. alhamdulilah. am na Serigne Bara. sukk si ñaan joo defal lii sa loxo la ba xam ko yor yaa ngi ñu ñoom ñëpp ñu xam la sëriñ Ba fadil ma yaa illallah ba def fa yaa illallah yaa illallah Seyd Mouhidine Lamine Seyd Mouhidine Lamine ñoom ñëpp ba Serigne Ba قدر ما يا إلينا قدر فيا إلينا إلينا أن نزل نارا قدر فيا إمامة الذين دائما يسلم بأيزا فلا قدر فيا إلينا إلينا إلينا أن نزل أحمد لمن حياله لمن يا الله Modou Aïssa yow sëñ Bass màgg yow sëñ Bass bu dëgër sëñ Bass yàlla wal hayaa ila il wayaa ila la ila ila la ila ila ila ila نسوة الحديد وعدت ولا إله لما إلى تهدنا عندك زين يا عزي خادم أو يا عزي أبو يا عزي مسعود محمد سلام قديم فدر ويا إلى الله فدر فيا إلى الله من سيدنا أنا صبي سهم من الميا أنا صبي سهم من الميا رفلني ببعض الزمان زلزل زعفر الميا لا إله إلا الميا إلا الله

Seex Sidi Muxtaar Mbàkke du réew maa ngi lay jooy du réew maa ngi lay jooy du réew maa ngi lay jooy maa yaa ilallah wa tanfa yaa ilallah Seex Sidi Muxtaar Mbàkke du réew maa ngi lay jooy du réew maa ngi lay jooy

sëriñ Baba su bëggatee buur itam na fekk buur ba lalal la mi moo bëggal boppam sëriñ Bara soo bëggatee buur itam na fekk Karim Mbakke Bare yàlla mi yàlla bëggal boppam sëriñ Bara bu yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ Bara

laab yàlla mi moo bëggal boppam Sëriñ Bara yàlla mi yàlla bëggal mi soxna bintu Aziz laab yàlla mi moo bëggal boppam Sëriñ Bara yàlla mi yàlla bëggal mi soxna bintu Aziz laab yàlla mi moo bëggal boppam Sëriñ Bara Aziz laab yàlla mi bëggal boppam Serigne Bara bu yàlla laa bëggal ku sopp Serigne Fallou Aziz laa bu yàlla nii oo bëggal boppam Serigne Bara bu yàlla nii laa bëggal ku bëgg Serigne Fallou Aziz laa bu yàlla nii oo bëggal boppam Serigne Bara bu yàlla nii laa bëggal ku bëgg Serigne Fallou Aziz laa bu yàlla nii moo bëggal boppam Serigne Bara

الإسلام ويا الذي مهدد الوطن سرين دارا ويا الذي قلد الأس للود بينارا ويا الذي مهدد الوطن سرين دارا ويا الذي مهدد الوطن سرين فن الإسلام ويا الذي مهدد الوطن سرين دارا Singuna raja sang dari dari المنور مثل الناران سمكه منور البنيان كما المنور بنيان مثل الناران كما المنور قلنا مسلم بارا كما المنور وقصد سري صعب عزيز لا كما المنور قلنا مسلم بارا كما المنور سري صعب عزيز لا كما المنور قلنا مسلم بارا كما المنور سري صعب عزيز لا كما المنور قلنا مسلم بارا ku ma kun la yàlla daal la lay dalal ku ko jox yeneen ba mu fa jox sii di ramin baala kasi dogal ku ma kun la yàlla daal mu fa jox sii di ramin baala yeneen ba denn fa baal kasi dogal mu jox ko bamba mu fa jox sii di ramin baala yeneen ba denn fa baal kasi dogal Mbakke bu mu neex ak bu mu neexul moo moom jamono. ma ni mbooloo mi képp ku sëñ Tuubaa neex jógal taxaw jógal ñu màggal ko. Mbakke bu mu neex ak bu mu neexul moo la moom jamono. bu neex ak bu mu neexul moo la moom jamono. Mbakke bu mu neex ak bu mu neexul moo la moom jamono. bu neex ak bu mu neexul moo la moom.

ci seen saal ak sëriñ saal sant bi sant naa wala ci jëmala def ci seen saal sunu sant sant seen saal sunu sant ay saal am ba am jeex na ci biir sëriñ saal Mbàkke daa yaaka ma nu ban onu bay ji ji jamono am ba am jeex na ca ku bëgg bàyyi sant defal nii sa loxo ci sëriñ saal soxna jaara si gii gi soxna jaara si géej gi. soxna jaara si géej gi. ama soppay soxna jaara. ama soppay soxna jaara. ama soppay soxna jaara. ñu si woon jinni aw bi. xaaral kenn mën a boole. soxna jaara si géej gi. addina kenn du ko. si woon jinni aw bi. xaaral kenn mën a boole. بسم الله تمام وتقدر بالجنة بسم الله تمام وتقدر بالجنة يوم جون على الأرض سمع دار مولانا بسم الله تمام أمم جرد فني سلقت مرم برها سمع دار مولانا ودوزي دي فينا يا رب وتقوم لك كل دم يدينا

العبد والكرم بابا نجي أدقنا نجي أدقنا نجي أدقنا سونا أدقنا نوكم تعالى أنت من معنا مولاي كتير أرد الموضوع خلقتك وقال ما حكمتك تعالى أنت من معنا نجي أدقنا نجي أدقنا bi di ay dëkkandoom soxna Anta Ndiaye mbokkum Talla Anta moom ma aram bi di ay dëkkandoom bi di ay dëkk jigéenam soxna Anta Ndiaye mbokkum Talla Anta moom ma loolu waral borom gaawam wara ki bambay jaamam hamsa inde jammaate waral mbodi xaala yàlla waral borom gaawam wara ki bambay jaamam hamsa inde jammaate waral mbodi xaala jaam sa i jammaate waral mbodi xaala ma waral mu di faal. jaam sa i jaam baatin ma waral mu di faal. jaam sa i jaam baatin ma waral mu di faal. jaam sa i jaam baatin ma waral mu di faal. jaam sa i jaam baatin ma waral mu di faal. tudd di kii jimbal ko la ak nga dem rootam. dong ay xayat toolam soxna jaara ma sellal. dëgg dëgg la jimbal. ala am na dem rootam. dong ay xayat. soxna jaara thần thiết nhân em có môi đi ra sẽ là phát sinh tư và từ nhau hơn môi là không làm ya tôi đã đó sang nhân văn dấu đồ hoa dấu đồ hoa hôn dấu đồ hoa là đồ hoa là hơn ba mươi lần năm sẽ là mấy lần bao lần đủ mà hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn seen ramat man borom Tuuba ku jafay dalila Tuuba ku jafay dalila ay mam seen ramat man borom Tuuba ku jafay dalila Tuuba ku jafay dalila ay mam seen ramat man borom Tuuba ku jafay dalila doomi alaaji Falli mu Mbàkke borom Tuuba ko jaafal maa ngi leeral alaaji Falli mu Mbàkke borom Tuuba ko jaafal maa ngi leeral alaaji Falli borom Tuuba ko jaafal maa ngi leeral alaaji Falli sin fallu sin fallu sin fallu sin fallu sin fallu sin fallu alaaji Falli borom Tuuba ko jaafal maa ngi leeral alaaji Falli borom Tuuba ko jaafal chega.